jërë ngeen jëf mbokk internet yi M4 TV ñu daal dañ yéegi ak xibaar woo xamante ni daal nañ ko jot ni ki tey jii nii jëm ci conseil constitutionnel a ginnaaw nag bi ñu daal di saytoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat yi fas a ak daal di jàngonte li di élection présidentielle gi ñu dëgmal ci atum 2024 25 février conseil constitutionnel daal dina biral fësal li nga xamante ni moom mooy liste ak candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di admis d'office maanaam ñoo fas yéene daal di jongante ci les élections niki tey jii ni samedi yamoo ko ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2024 mu bokk nag ci liste bi nag lu toll ci ñaar fukk ci ay candidats fas yéene daal jongante njiitu réew mi ni kii le 25 février atum 2024 mu daal ci bokk kii la di Boubacar Camara Cheikh Tidiane Dièye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Alioune Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mouhamed Boun Abdallah Dionne El Hadji Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye El Hadji Mamadou Diaw Bassirou Diomaye Faye ak kile di Thierno Alassane Sall doon nag ñi nga xamante ni ñoo fas yéene daal di jongante li jëm ci yi ñu dëgmal leen nag ñu daal di ko nemmeeku muy kii di Karim Meïssa Wade bu parti démocratique bu sénégalais moom bokkul ci biir liste mu mel rek ni dañ ko daal di téye waral rek boo moom nag ñu daal di bu fut moom ñi mu àndal jàpp nag ñi beddi giñ ko bedd ci li nga xamante ne ni moo di liste bi jaarut yoon benn yoon ndax nag lépp loo xamante ne ni daat nañ ko laaj am matale na ko waaye tamit keneen ñu daal di nemmeeku ni bokk ci liste bi mu doon nag ki nga xamante nii moom mooy Ousmane Sonko bu bi bile coalition wala bokk bi bile parti di ex Pastef moom tamit nag ñu may mel ni daal nañ ko génne ci liste bi nga xamante ni mooy ñaar fukk euh, candidat yi fas yéene daal di jogante ci élection présidentielle yi nga xamante ni moom lañ fas yéene amal ni ki le 25 février atum 2024 gi ñu dëgmal liste bi nag doon liste boo xamante ni mooy liste officielle waaye tamit liste définitive maanaam liste bi nga xamante ne ni euh, duñ ci toftal dara ñaar fukk yi candidat lañ mën a jàpp ni ñoom ñoo fas yéene daal di jogante ci élection yi ñu dëgmal ci atum 2024 euh, jëm ci février gi ñu dëgmal